man maay Abou man maay président national euh, alliance nationale des amis de Marème Faye Sall. de Marème Faye bon euh, benn kuréel la boo xam ne daal dañu daje pour euh, ànd ak la première dame ci politique sociale bi nga xam ne moom lay def loolu mooy alliance bi quoi dañ daje ñun ñëpp dekk benn ci kuréel boobu. donc dañ la veut laaj aussi lan moo ko tax a jóg alliance boobu luy rôle waaw alliance boobu euh, luy priorité bi mooy gunge le président de la république ci li nga xam ne moom lay développé dans le social avec la première dame. donc wala la laaj tamit lu tax ngeen tànn tey kërmasaar ñëw fi kërmasaar lu tax ñu tànn ko parce que dafa nekk point boo xam ne point bu am importance la te xam nañ ne suñu membres yi nekk fi liggéey bi ñu liggéey ñu koy remarquer toujours toujours xam nañ ne caaxaanu ci li ñu def moo tax ñu jagle leen tey suñ première sortie ñu indi ko kërmasaar donc objectif bi lan moo ko tax a jóg exactement objectif bi comme ni ma la ko waxe rek hmm. dajale tous les sénégalais yi nga xamné dañu taxaw tay pour gunge le président de la république euh, ñi apolitique ñi politique ñi nga xamné ne nekkuñ fenn ñun loolu lañu regrouper pour jappalé le président de la république. alliance li ci ci njëkk wax moy alliance des amis de Marème Faye euh, association la bu taxaw ngir. accompagner son excellence le président de la république jaarale ko ci soxna muy Marème Faye mu ëmb ay góor ak i jigéen ñu nekk partout fii ci senegal rawatina ci diaspora bi tey nag ñu taamoon ñëw fii ci Kër Massar ngir co monter koy coordination yi nga xamante ni euh, dañ koy def fépp ci Sénégal. au niveau national appel bi may lancé je crois que bariwul au niveau national li leen di wax mooy ñu jàppale ñu. Mm-hmm. ñun ñu jàppale ñu ñun waa Kër Massar d'abord. ensuite ñu ñu jàppale leen parce que nous nañ ñoom plan sen plan d'action gis jàng nañ ko liggéey nañ ko ak ñoom xamna ñu lu la donc vraiment c'est pas c'est pas facile pour nous atteindre objectif bi du yombu mais je crois que la dans la aussi comme nous l'avons ko défé ci sen sen banderole bi je crois que nous ci jappé rek dinañ dem mais boudé pour Kermassar, Massar Kër Massar d'abord am chance ñu ñëk la sampal coordination ben ñaar Kër Massar ni mu tollu ñu njëkk wax alliance fi ci biir Kër Massar je crois que waa Kër Massar dañ leena a sas. Mhm. sas bi leen sas nak mooy ñom ñëpp ñu jóg nek ben mhm. gor gorlu ci ginaaw alliance par le biais de euh, Marème Faisal, mhm. mais aussi j'appelle aussi euh, Macky Sall. parce que aujourd'hui kii di Marème Faye Sall Macky Sall. donc j'appelle Macky Sall parce que gis biñu bëgg biñu bëgg Marème Faisal c'est pas aussi du hasard. dañu gis li muy liggéey ci dëkk bi si côté social di jàppale ni néew ju doole yi te ñu jàpp ni Kër Massar aussi ñi néew doole ñoo fi nekk donc ñu bëgg ni ni nga xam ne alliance bi moom la njëkk a sampoo fii biir Kër Massar ñu bëgg aussi Marème Faisal Sall njëkk a jàppale waa Kër Massar balaa moo jàppale ñeneen. Voilà, en fait, l'Alliance nationale des amis de Marine Faisal est une association qui est ouverte à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et qui œuvre pour euh, les bienfaisances de Madame la Première Dame. Donc, sur ce, on voudrait vous poser, euh, c'est quoi son, son rôle mais son rôle, comme je l'ai dit, c'est appuyer Madame la marraine, qui est Madame Marianne Faisal, mais aussi être euh, au chevet des populations les plus démunies, participer à la formation et à tout ce qui est social dans le pays. Donc pourquoi le, euh, choix de Kermassar euh, Kermassar, le choix n'est pas gratuit parce que nous avons à notre actif 28 coordinations et Kermassar est la première coordination à être montée officiellement. Donc c'est un insigne plaisir que nous avons d'être là aujourd'hui à Kermassar. Donc, c'est quoi l'objectif euh, général euh, de l'Alliance L'objectif général, c'est de fédérer toutes les énergies qui sont, positives autour de la Première Dame, notre marraine Mariam Faisal, mais aussi d'être là quand il le faut.